ngeen di abonné fii si Tawfekh Production ngeen mën a jot mën a xam li nga xam ne moom la rek. ne ku mel ni maam Thierno ni ma teeroo mënu ko ñàkk félicité mënu ko ñàkk remercier parce que sëñ bi mënoon naa wëndeel bantu bibliothèque bi dóor ko Daaru Xudoos su boobaa kon du ma ko gis mënoon na ko wëndeel dóor ko Daaru Minam kon su boobaa duma gis kenn ci ci ñi taxaw. kon jaadu na ci su ma fekkee loo xam ne sëñ bi waajal na ko ba noppi mu ne ma loolu yëpp sa disponibilité la kon su ma amee tuuti xel loolu te bañ a teg ma dafi pexe nag ndax ku ñu dimbali ku ne day fekk nga sóob ci say loxo loolu kon am na ci partie étude ba bi ñu si fii ñu si tey loolu kon bi organiser chantier bi ñu gis ne ouvrier bi nekk atelier de chantier képp soo ko bàyyee ci naaj wi sa pertement la rendement bi da ciy feeñ donc ñu ne kon nañ yóbba que mu bàyyi woo loolu doo ko mën a bàyyi wanag wanag wi it ay catégorie catégorie la doo mën a bàyyi magasin doo mën a bàyyi selon bi ñëwee it fekk nañ fi ay ay encombrement sur l'emprise parce que emprise bi moom lu am importance la mooy fekkoon nañ fi ay bâtiment yoo xam ne euh, bu ñu bu ñu ko dindiwul woon du ñu noyyi noyyi du mën a am suñ pouvait pas respirer te poumon bi ñu am nii yëpp li ñu ko may mooy dindi loolu on battu ba def ko moom itam en temps bu bu euh, réglementaire ñu def ko mu nga xam ne kon organisation chantier moom mooy mooy li am fépp rek ñu respecté lépp def benn barak de chantier euh, euh, ñu nga xam ne ay borom xam-xam ñu mën di fi ñëw ñuy mën a jàpp dara ba noppi ñëw gis terrain bi mu bëgg ñu mayaat ñu war a toogaat ñu bëgg ko xolandoo def ko ba mu baax kon loolu phase yooyu bi ñu ko jàllee li des mooy Euh, ñu wax tuuti kon ci li nga xam ne mooy jëmmi bâtiment bi bâtiment bi bibliothèque dafa am euh, lu muy nangu ak lu muy bañ euh, te dafa am loo xam ne c'était on l'a trouvé préétabli muy îlot bi nga xam ne moom lañ ñu affecté îlot bi sax sëñ maam Thierno moom dama ko dafa daf ma ko étendre loon mais loolu mooy la nga xam ne moo waroon am ndax bibliothèque dafa am loo xam ne quatre côtés yëpp soo ko amul ci emprise ëllëg mën nga tooñ mën nga lor boo tey bu ñu paree bi dem ci plan yi di ngeen gis li nga xam ne mooy plan bi nga xam ne respecté nañu leen norme de construction d'une bibliothèque ñi nga xam ne dañu am benn benn benn benn benn génn tuuti bu ñu génn ci îlot bi bi ñu demee ba xam ne ilo euh, bi euh, mënuñu ko mënuñu ko wiñaar dinañ leen won tam nan la ñu duggee ci biir ak ni nga xamante ne moom la ñu war a jaar ba lépp xaj ci biir li ci des nag su fekkee am na benn aspect benn côté boo xam ne ñii saytu bibliothèque ci àddina bi boo bu ñëwee bu ñu defee dañu yaakaar ne ñun dañu xam loolu on leur donne un rapport donc loolu kon bokk na ci li nga xam ne ci côté emplacement barab bi lu bokkul ak li nga xam ne mooy li ma doon wax muy laspe aspect géomorphologique l' aspect hydrologique l' sécurité ak ñi nga xam ne PP PPR yi prévention ci wàllu risque yi donc kon loolu euh, yaakaar naa ne bi mu jàllee jëmmi bâtiment bi kon dañ koy daal di daganal dañ ko daganal topp ko ba lépp sotti ñu daal nag gis ne li ëpp ci bibliothèque bu ñu koy wax livre moo tax c' est l' argument dominant mu nga xam ne dañuy def nag li nga xam ne moom la ñuy wax le magasin le magasin de de rayonnage ñii di ko wax magasin de stockage loolu def nañ ko en trois niveaux muy rez de bi premier niveau ak deuxième niveau ak souterrain bi nga xam ne day nekk imprimerie ak édition kon loolu bu ngeen xoolee image yi di ngeen ko ci gis Euh, euh, bu dee ci wàllu fonctionnement bi ni muy demee lépp luy ànd ak bureau bi buy ànd ak bibliothèque ba ci li ñu toll nii ci jamono mooy Covid 19 bi muy mise en quarantaine le livre qui doit être mis en quarantaine même ay barabam prévoir nañ parce que këyit bu jógee fële dafay indaale jàngoro jàngoro boobu dinañ ko naj ba nga xam ne moom du du wàll ñu fi fekk loolu kon ak trier muy àndal ak la muy am def yépp personnel bi am nañ seen wàll. bunt yu ñuy duggee euh, fu ñu jaar foo xam ne ñoom rek ñoo fa sañ a jaar public bi am na fu ñuy duggee nga xam ne yéegukaay yéeg yëpp escalier yi ak ascenseur yéeg yëpp fàggu nañ ko ci mais livre dafa bari ay contraintes tey loo technique soo ma ko joxee day mel ni man damay xalaat ne ki may jox loo technique xam na lépp lu war dem ci bibliothèque parce que man sama humidité relative dafa sensible sama humidité absolue dafa sensible tey dañ koy monter defal koy automate ba nga xam ne moom su ma duggoon avion di dem Union soviétique wala may dem feneen mën nay contrôler fii automate bi daf may wax ah sa humidité relative sa humidité nangam sa sa lii nangam donc li nga xam ne mooy le traitement de l'air daf ko def ci soxor këyit la da ngay def say désenfumage sa sécurité incendie yi mu àndal yëpp bañ na ba béton bii ñuy def nii am na foo xam ne bu fa tolloo am na ñoo xam dañuy wuti ay déshydrateur ça veut dire que ndox miy des ci biir béton bi day am impact ci biir livre bi donc loolu foog nga xam ko yóbbaale ko à chaque fois bu ñu la bëggee yàkkamteloo loo sax nga bañ euh, boo deful déshydrateur boo demee ba ci sa plancher lépp luy tiim livre moom bu fekkee respecté nga liñ la wax danga koy def des planchers alvéolaires nga xam ne buñ ko indee fii ay machine a koy yëkkati yu mag ñoo koy teg ci dal bi nga xam ne partie bi dem livre li ci des on peut revenir au classique mën nañ delluwaat ci ni ñuy defaree kër normal donc loolu kon pour wane rek ne li ci ëpp ci euh, farata yooyu nga xam ne mënoo ko bàyyi moom dañ koy bàyyi nañ ko xel bu baax jéem nañ ci lu le maximum possible te duñ ko bàyyi ba ba ñuy eggal donc boo duggee kon ci duggukaay bi ba agsi ci euh, hall hall d'entrée bi nga am ci sa ndey kër sëñ bi suite la parce que lu mel nii kenn mënu ko liggéey te te doo am photo donc am na suite am na salle d'attente ak yi mu war a àndal yëpp ci commodité boo tourné ci côté bi des am na li ñuy wax auditorium moom tam am na salle d'attente am sas amaale auditorium ak li auditorium di àndal lépp ci wàllu ki amaale ci biir auditorium diggante présidium bi ak li nga xam ne mooy public bi une place qui est prévue pour la prestation des xasida loolu tamit mu nekkaat spécificité boo xam ne ci wàllu sëñ bi foo jëlee li loo yor li loolu am na leen lu koy remplacer dafa am lu koy remplacer loo xam ne du ñu wax ak moom duñ def ak moom dañ koy jaarloo fi muy jaar rek bu fa jaar su pare dinañ xam ne kii daal nu ko neex doxee ci biir su génn jot consultation dafa bari exigence ndax téere bi bu fekkee da ngay ablé téere day am nu muy doxe loolu yi euh, fàgguwaale bàyyi ko fekkee dafa amaat benn stock da koy bàyyi wàll xel mais ci biir bâtiment bi sooy liggéey suñ la ne par exemple norme norme norme de base bi si tu as vingt mille vingt vingt mille mètres vingt mille mètres maanaam vingt kilomètres soo amee vingt kilomètres de livre yaa ngi war a tabax trois mille mètres carrés minimum te man nga bàyyi xel ne awma awma trois mille mètres carrés maa ngi ci mille neuf cent deux mille maximum donc donc retiré soo su ma amee 2000 maximum euh, ma jël sama euh, mètre linéaire calculer ko ak sama nombre de livres war naa am kële moom mën na dem ba 700 à 750 livres 750 000 man maa ngi euh, programmer li may am maa ngi programmer 300 000 350 000 livres donc ñaar da ciy dëkk ni ma xate dama ko ci fàgguwaale fu ma bëggee yokk. Euh, dama ci fàgguwaay tam lii su ma ko bëggee yokk fekk fukki at ak juróom donc facile donc ñaari ñaari ñaari critères yooyu mënu ma ko bañ a nit ñi dañuy màgg dëkk waaye dëkk yi dañuy màgg euh, besoin bi day yokk kon donc loolu tëniraale nañ ci compte bu baax a baax ci gàttal daal xam naa su fekkee dama ko bëgg topp noonu xanaa peut-être mu am ay aspect technique yoo xam ne gars yi nañu ci laaj ñu mën ci boo bëggee jëm waxandoo lépp